asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi ñuy ñep ci seen chaîne sama xalaat TV ñi ngi leen ziar baax di leen fàttali yéen a ngi seen euh, programme huile euh, de la semaine huile de la semaine nag comme ni ngeen ko xamee mën na nekk huile végétale mën na nekk tam huile essentielle waaw bu tey bi nag dañuy ñëw ci huile bi jógee ci euh, pomme bu ñu nee huile bi jógee ci pomme nag professeur Abdou dina leeral huile bi après fan ci pomme lay jógee ñu leen fàttali nag ñu ci si ànd ak professeur Ousmane Ndiaye borom Boga Bio nekk tradipraticien nekk fële ci diwaanu Kër Massar moom moo ñuy faram fàcceel euh, waxtaan yi ñu koy ziar bu baax di ko gërëm di ko sant ci disponibilité bi ak partage bi muy def partage savoir la bi muy def nii te lu am solo la muy jàngale utiliser internet pour def ko euh, sénégalais yu bari mën see jëpp mën see mën see jëriñu euh, koo ci xam ne rek munoo barkeelu ci liggéey bi muy def ci wàllum koom-koom ndax numéro mi ngi noonu am na orange ma ne am na wéer suufu écran bi koo ci xam ne gis nga ni li muy def nii jëriñu nga ci té amé nga ko njukkal mun nga jaar ci numéro yi délo ko njukkal bu la neexee sax doo ko woo nga délo ko njukkal rek non té yalla tax so mënu loolu tamit mën nga ñaan mën ngaa jàng benn faatixa falaxeeg naas nasi wala salatu ala nabi wala istighfar wala basmala nga def ko addi yoonent bi yéne ko yoon ci loolu moom yomb na <laughs> ku mënul bee mën bi wala bu ci nit baax ne baax na <laughs> tay nak euh, dañuy ñëw ci li nga xamni moy comme liñ leen ko waxee huile de pomme lañ bëgg xam professeur euh, lan moy ay ñariñam ak euh, niñ koy jëfëndiko wax suñ Pape ñu ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu mbokku internet yëpp di lay jaajëfale ci liggéey bi. Mm-hmm. na eh, kuy ñaanit nañu boole ñaan gi rek. lu waay di yónnee nañu ko boole rek. <laughs> non maa ngi ñoo bokk ñoo bokk liggéey ñoo bokk liggéey bi yëpp benn la <laughs> yow sax yaa war a moom lépp. parce que dafa ah, faral di wax ndax yaa am initiative bi. Ah, dégg mais nag vraiment. kon. Euh, yaay partage <laughs> ñu ngi la ciy sant. man wax bëri rek laa fi na solo am na solo am na solo yàlla baax na yàlla yàlla fay yiw. amiin jërëjëf. amiin donc huile de pépin de pomme. Mm. Euh, xam naa ni mooy li nga wax sànq ne bi jógee waaye mooy ci doom yi rek. Mm-hmm. sew yi. Mhm. maanaam dina am ñoo xam ne sax tam ñu ne eh, pomme ndax dina am. na lay amee huile nañ la amee huile ndax doom yi moom <laughs> daanaka bariwul am na ñoo xam ne sax dañ naan la ndax pomme dina am doom déjà. Mhm. ndax bariwu cee gis te tuuti lay nekk. Mm-hmm. donc noonu lay demee mais doom yooyu moom la ñuy nal daf ko huile. Mm-hmm. donc huile bi dina nekk huile boo xam dafa jafe nag dafa cher. Ah, ah, waaw yombul aussi quoi. Mm-hmm. yu raar kay la war a bokk ci raar yi bokk la waaw huile la moom yu raar yi la bokk. mais tubaab yi moom yëpp dañ koy am. tubaab moom ah. bokkut ak ñun quoi. aussi dafay am loo xam ne noonu la leen koy jaralee aussi. mais baax na ci anti inflammatoire mooy lépp loo xam ne ay métti métti la. tànk yu metti wala ndigg lu metti wala yoo xam ne day metti daal moom boo ci diw yàlla mën na la ko saafara day nekk tamit loo xamante ni baax na ci day protégé ci yaram maanaam deru yaram day rafetal deru yaram moom it day dindi anti vieillissement maanaam comme yaram bi ni muy gaaw a màggatee ak yu demee noonu mm-hmm. da koy saafara mm-hmm. day prévenir euh, léeg li ñuy la l'apparence des rides maanaam ñi nga xam ne dañuy ras wala yu demee noonu mhm. seen kanam yooyu tamit da koy da koy saafara bu baax mhm, mhm. day yokk li ñuy wax la croissance des cheveux maanaam dafa gaaw ci màggal karaw ñi nga xam ne tey seen karaw day day ruus wala muy dagg wala duñ gaaw am karaw day maye karaw day maye karaw daal waaw donc mu nekk huile boo xamante ni huile bu am njëriñ la donc huile bi tamit day baax na ci ñi nga xam ne dañuy amee insomnie nga xam ne pour ñu nelaw euh, problème lay nekk mm-hmm. wala ñi nga xam ne xëy na dañoo am problème rhumatisme wala ñu demee noonu mm-hmm. donc da koy protéger Mm-hmm. day indi tamit un apport nutritionnel. Mm-hmm. maanaam ñi nga xam ne xëy na xale yu xiiboon nañ wala yu demee noonu. Mm-hmm. su ñu am huile bi dafa am ay éléments. yoo xam ne dafa leen koy yokk. ñi nga xamante ni tamit dañuy am ay bronchite. c'est-à-dire sur les problèmes respiratoires ñi nga xam ne ñu am difficulté ci wàllu nooy yi. moo xam bronchite la. huile bi baax na ci. moo xam lu ñuy wax asma la huile bi baax na ci. moo xam lu ñuy wax sinusite la. muy yaaf huile bi baax na ci. moo xam lu ñuy wax grippe la. wala lu mel ni sibro yooyu huile baax na ci mhm. donc kon yooyu nga gis yëpp huile végétale bu kii daf koy daf koy saafara mhm. donc kon da nga gis ne baax na ci wàllu médecine mhm. mais aussi baax na ci wàllu cosmétique aussi dañ koy utiliser lu bari muy ci wàllu diw yaram bi ñu ci waxoon dindi tache yeeg rides yeeg yooyu. maanaam ras-ras yi. Mhm. ak protéger nit ki ba du gaaw màgget maanaam yaramam nekk teint bu rafet daal. Mhm. parce que day joxe teint bu rafet. Mhm. donc ci wàllu côté cosmétique boobu tamit da ci da ci da dox lu bari. donc kon ñaari côté yëpp huile da ci da ciy dox da ci am solo. donc yooyu ñuy wax tamit ci wàllu saafara yi muy dépression. baax na ci. insomnie ñi nga xam ne pour ñu nelaw dañuy am problème. wala ñi nga xam ne dañuy am problème mu sëqat bronchite. Mhm. asthme ak sinusite ak grippe yooyu yëpp tamit. Euh, baax na baax na ci daal. macha allah mhm. loolu moom yaakaar naa am na solo. Mhm. Euh, kon nag bëgg nañ xam professeur. Euh, utilisation bi xam naa nag moom si xëy nit dina xalaat ni moom nan ngay mën def ba am ci huile boo bëggee dajale ay pomme yu ñuy lekk du pomme yu ñuy lekk de. Mhm. usines yi defar ay jus naturel pomme. pomme waaw fa la gars yi di jëlee doom yi. parce que ñooñu quantité yu bari wala lañ ciy utilisé doom yi fa lay jógee. Mhm. ñu bàyyi ko xel voilà. Mhm, <laughs> léegi utilisation bi nan lañ koy jëfandikoo professeur bëggoon nañ ko xam. waaw utilisation bi bu dee ci wàllu cosmétique. Euh, moom da nga koy booleeg say diw wala yu demee noonu wala nga di ko frotté wu maasé woo. mais bu dee ci lekk bi mm-hmm. ça dépend na ñaari façon bu fekkee nit ki mën na ci am quantité bu bari donc en général yii sax bu koy wax fii taxul ñuy wax parce que pour ñu am ko day jafe mhm. mais bu fekkee nit ki am na ko xëy na am na ñoo xam ne du leen jafe mën mais tamit nit ki mën na koy utiliser comme huile d'olive nga xam ne benn kudd bu ndaw rek ngay jël mhm. kii ko nii waaw jàllale ko parce que am na huile yoo xam ne dañ ko utiliser noonu oh. comme lu mel ni tulukuna wala huile de ah, sump wala huile de mm. kii yooyu kudd bu ndaw rek ngay jël naan naan mu jàll noonu la baaxee aussi ci digestion fàtte woon naa ko day raxas eh, biir ak yu demee noonu ak ñi xam dañuy seere ak yu demee noonu gaaw reesal ñam gaaw reesal waaw indigestion waxoon nañ donc mu ngi amee benn cuillère rek benn yoon ci suba gi benn yoon ci ngoon gi kudd bu ndaw baax na ko comme professeur yaakaar naa. loolu am na solo trop euh, ñu la siy remercier ci partage bi c'est très important ni ñu xamee ko noonu xam ni pomme lekk ko baax na waaye itam am na huile. Euh, mm. boo xam ne baax na trop. effectivement voilà man am na lu ma ci seetlu daal ci pomme mooy euh, gis naa ni boo ko mujjee lekk booy tëdd. Mm-hmm. boo yeewoo bu la neexee nga bañ a brosse loolu seetlu naa ko ci pomme. Mm-hmm. xëy na tam ñeneen mën nañ ko expérimenter xool. ok loolu ma seetlu naa ko ci pomme. waaw comme li muy faj dafa bëri pa boo xoolee. bu mujjee sa gémmiñ daal galax di ko après defoo dara. Mhm. soo yeewoo gis naa ni jarul ngay. jarul ngay xaw ma nag yan substance yoo bi luy def loolu. non dafa bëri bëri waaw après dañ ci gëstu parce que li ma la mën a wax rek mooy. Mhm. am na lu ñu wax vinaigre de cidre. waaw waaw vinaigre de cidre vinaigre la wax xam ne ñu nga ko defaree ci pomme. te vinaigre bi ñu defaree ci pomme boo xoolee ci net bi nga gis vinaigre de cidre ngay bind quoi mën nga def vinaigre de pomme sax mais cidre bi moo gën a siiw. waaw cidra. waaw Espagne cidra lañ ko. waaw kay léegi bu vinaigre boobu presque lépp lay faj daanaka li muy faj dafa bari. Hmm. donc pour wan la ni. Hmm. Eh, dafa am njëriñ. Hmm, dëgg la. dëgg am naa benn document boo xam ni. Euh, vinaigre de. tàndarma dat. waaw mais moom it li muy faj dafa bari. mais ñun yooyu duñ ko defar mais xam naa ne yooyu dinañ ci xaw a gëstu sax génne dinañ ci ñëw ci ci ci vidéo bi di ñëw am dañuy ñëw ci feebar yu bëri lay kii euh, ci euh, business yi war a mën a am ci ci ci ci ci ci ci ci pom pom ak yu demee dinañ ci ñëw incha allah bu ko defee nga mën ci xool ba xam dina am loo ci mën a wax gaañ. d'accord <laughs> incha allah jërëjëf. professeur ñu ngi lay remercier jërëjëf Pape. yox rendez-vous ñuy suivre vidéo bii di ñëw. dernier bi incha allah rabbi merci jërëjëf. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ana ñi bëgg seen doom jàng alquran ju sell lool waaye itam ànd ak yarub lislaam bu wér lool. daaray alquran yi nii ji wuyoo daaray Serigne Modou Gueye Pire nekkoon jàngalekatub alquran bu ñu ràññee woon lool. waaye itam njiitu daara ji ji wuyoo ci ki nga xam ne moom moo di docteur Ousmane Ndiaye nekk itam ku ñu